tasnim online moo leen di may jotaayu koor alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel ci koor gi di ñaan yàlla suñu borom mu nangul ñu nangul leen ñu ngi dellusiwaat ci jotaayu koor comme niñ ko doon amee ci ngoonu koor gu jot di ci jàng tey xadiisu albara ibn azib radiallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuthabitu allahu alladina amanu bilqawli thabiti قال نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك فيقول ربي الله نبي محمد وذلك قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية حديث بوب متفق عليه من صحيح البخاري ومسلم البراء ابن عازب day faral di nettali yenn hadith yi nga xam ne yonent bi alayhi salatu salaam da ciy wax ci wàllu bàmmeel ak lu jëm ci faatu ak ci mbëgalu bàmmeel ak xéewalu bàmmeel dafa nettali ne benn bis yonent bi alayhi salatu salaam dafa jàng wax ji yàlla wax ne yuthabitu llahu alladina amanu bilqawli thabiti fi lxayati dunia wa fi laxira yàlla mooy saxal làmmiñu ñi nga xamante ne bi ñoo ko gëmoon fii ci kaw suuf doon góorgóorlu ci seen digganteeg seen boroom doon góorgóorlu ci tawxid di wéetal yàlla di jaamu yàlla buñ demee ba war a faatu wala buñ demee ba nekk ci seen bàmmeel ndax yenn ci borom xam-xam yi wax ne bu yuthabitu llahu alladina amanu bil qawli thabiti fi lxayaati dunia mooy nit ki buy faatu wax ji muy mën a wax ne la ilaha illa allah bu ko defee loolu nekk waxam ji mujj te yonentu bi alayhi salaam ne woon na man kaana aaxira kalaamihi la ilaha illa allah daxala aljanna wala man kaana aaxiru kalaamihi la ilaha illa allah daxala aljanna koo xamante ni li mujjee wax buy génn àdduna mooy laa ilaha illa dafay dugg aljanna léegi liy saxal nit ki làmmiñam ba bu nekkee ci jamono jooju mu mën a wax loolu yàlla suñu borom la noonu nga xamante ni noonu la yàlla subhanahu wa di saxalee jaam bi ci jamono bi nga xam ne ci lay faatu ci xadis bi noonu la yonent bi alayhi salaam waxee noonu la koy saxalee tamit ci biir bàmmeelam ndax wér na ni nit ki bu fekkee faatu na ba nekk ci bàmmeelam yàlla dina yónni ci moom ñaari malaaka munkar ak nakiir ñaari malaaka yoo xamante ne yu lëndëm lañ yoo xam ne li ñuy indi nit ki xamu ko xamul dara ci seen mbir te itam nit ki xamu leen loolu la munkar ak nakir di tekki bu ko defee ñu dikk di ko laaj jamono boobu ñu koy laaj nga xam ne day nekk ci njàqare wéet lool ci bàmmeelam gisul kenn ku koy dimbali gisul kenn ku naan ko waxal li wala defal li wala bàyyi leen ko mu def li wala digganteem ak ñoom la ci ñoo xamante ne xamu leen mosu leen a gis mu nekk ci njàqare nekk ci tit lool tontu yoo xamante ne bi texeem ak texee dem ñoo ci aju ñoo ci aju ñoo ci dépendre ñu laaj ko ne ko man rabbuk kan mooy sa borom kan mooy sa borom waxuñ ko kan mooy sa yàlla kan mooy sa borom rabb lañ jëfandikoo loolu lañ waxoon ci suñu jataay yële ne rabbuka rabbuka jooju nga xamante ni moom moo séq doomu aadama dundam ci lay duggee ci àdduna laata muy ñëw ci àdduna yàlla nee na ko alastu bi rabbikum ndax nekkuma seen borom nit ki nangu loolu mu nekk fitra bu ko yàlla moo ñaalee nekk lu nekk ci moom muy nangul bi nga xam ne jaam bi nangul na ko yàlla subhaanahu wa taala moom gim ko moom ak yilif gim ko yilif ak nekk mu nekk boroomam mu nangu loolu loolu yàlla def ko ci moom mu saxal ko nangu ko ñëw ci àdduna bu ñëwee ci àdduna nag lay jóge ci loolu noonu nga xam ne mooy cosaan ci moom di nature boobu dem ci leneen mooy fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yumassiraanihi aw yunajjisaanihi la muy topp ginnaaw bi ñu askanele ko loolu lu koy jële ci nature boobu la wa illaa nature boobu mooy loolu mu séqoon ak yàlla te nangu ko bu fi jógee itam fa nga xam ne fa lay nekk laata yàlla di dekkal jaam ñi ci barzax bu ñëwee loolu lañ koy laajaat mooy loolu mu nangu woon te saxaloon ko te nangu ne yàlla mooy boromam bi mu ñëwee àdduna ndax jëfe na ko ndax dëggal na ko am déet ndax wax jooju mu waxoon laata muy ñëw ci àdduna ba ne nangu na ko ndax bi mu fi ñëwee ba jóge fi ba léegi mi ngi koy mën a wax wala déet bu ko defee ñu laaj ko ne ko man rabbuk kan mooy sa buur kan mooy sa borom loolu nekk loo xamante ni mooy lijjanti mooy tontu dundam bi mu fi dund lépp ci diggante ñaari espace yi diggante ba ko yàlla dogalee mbindam yàlla dogal ci amal ko mu ñëw ci kaw suuf bi muy ñëw fekk ne nangu woon na loolu ci digganteem ak yàlla bi mu ñëwee ci kaw suuf diggante boobu mu fiy nekk ba baa mooy demaat ci biir bàmmeel buñ ko waxee ne ko man rabbuk li muy tekki mooy ndax rabbuka jooju ko yàlla waxoon ne ko ndax nekkal ma sa borom mu ne añ kay ndax bi mu nekkee ci kaw suuf méngale na dundam ak loolu wala déet bu dee méngale na dundam ak ne yàlla moo doon boroomam loolu la nangu woon indaale ko ci kaw suuf te bi mu ñëwee loolu la fi jëfe bu boobaa ba nee ko man du am sikki sàkk ci ne yàlla mooy boroomam dafay daal di tontu yàlla saxalal ko làmmiñam bu ko defee wax jooju nga xam ne waxuk dëgg la nga xam ne mooy seedeel yàlla tawxiid seedeel yàlla wéet ak yàlla subhanahu wa taala fi nga xam ne fa la toll jaam ñi muy place bi ñu ko war a teg yàlla saxalal nit ki làmmiñam ba mën a tontu loolu kon yuthabitu llahu alladina amanu bilqawli thabiti fi lxayaati dunya wa fi l loolu yonent bi alayhi salaatu salaam wax ko kon ci adaabu alqabr ci mbugalu bàmmeel wax nañ ne saxal la goo xamante ne dafay am tamit ci jamono bu nit ki di faatu bu demee bay sukuraat yàlla saxla ko làmmiñam mu mën a seede laa ilaha waaye ni mu ciy nekkee fii ci kaw suuf itam di ko dund laa ilaha illallah mooy kàddu tawxiid di kàddu wéetal yàlla yàlla moo ciy saxal jaam bi mu nekk ci kaw suuf di ko dund ba faatoo buñ ko ko laajee yàlla saxal ko làmmiñam mën cee tontu kon nit ki bu bëggee bëgg bëgg a tontu. laaj boobu di man ko buñ ko dugalee ci bàmmeelam na góorgóorlu ba jamono bi muy dund mu def yàlla mooy boroomam mu wéetal yàlla mu nangul yàlla déggal yàlla def ko muy kilifaam subhanahu wa taala bu boobaa bu duggee ci bàmmeelam bu ko fa ñaari malaka yooyu fekkee di ko laaj dina mën a tontu ndax yàlla moo koy saxala làmmiñam bu ko defee mu daal di tontu loolu ne wa nabiyi muhammad sallallahu alayhi wa sallam te sama yonent bi nga xam ne moom laa jàppee woon yonent bi yàlla yónni ci man may jële ci moom sama diine mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolu tamit tontu la boo xam ni tontu bu dépendre ci réalité bi nit ki nekkoon la ndax foofu du ay lay la fa nit di tontoo ay lay ak wax joo xam ne wax ju la neex la même bu fekkee pawul ak réalité bi bu jariñee nit ki fii ci àdduna itam bu fi nit ki jógee ba dem ci beneen réalité loolu du ko fa mën a jariñ foofu li am rek la nit ki mën a wax li amul mënu koo wax jamono jooj ñu koy li am lim doon dund ci li weesu loolu la mën a tontu bu nit ki ne nabi yi muhammad sama yonent mooy muhammad day wane ni da koo yonentoo woon da koo déggaloon nangul ko da koo royoon da koo toppoon sallallahu alayhi wa sallam boobaa mu tontu loolu nee na loolu mooy li yàlla wax ne yuthabitu llahu alladina amanu bil qawli thabiti fi lxayaati dunia wa fi l axira yàlla mooy saxal ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gëmoon yàlla moo leen di saxal ni mu leen saxale woon ci àdduna ñu nekk ci kaw tawxid nekk ci kaw njub di wéetal yàlla naka noonu itam noonu la leen yàlla di saxalee bu ñu demee ba faatu liñ leen di laaj ci seen wàllu ngëm yàlla ci seen wàllu diine ñu mën koo tontu tontu bu jub tàmbalee ko ci seedeel yàlla wéet gi nga xam ne doon nañ ko wéetal fii ci àdduna loolu yàlla moo leen di saxal waaye nag wa yudillu llahu zalimina wa yafalu llahu ma yasha ñi nga xamante ne ay tooñkat lañu woon mooy ñi nga xam ne ay bokkaalekat lañu woon di ay moykati yàlla bokkaalekat yooyu ndax zalimin la jëfandikoo mooy ñi daan tooñ ci di jëfe di jëfe bokkaale ndax bokkaale mooy tooñ gu mag gi ndax wa yudillu llahu zalimin yàlla namu ci tooñkat boo xamante ne daa jël alalu jàmbur wala mu dóor nit nga ne tooñkat boobu bu demee yàlla da koy réeral gëlëmal ko ba du mën a tontu tooñ googu àggul foofu tooñ googu bàkkaar la rek bu mu nit ki def boo xam ne mën naa bañ a waral nit ki di dem yàlla di ko nattoo loolu waaye tooñ gi waral dëgg nit ki dem ci bàmmeelam ñu koy laaj mu naan haa haa haa laa adari xaw li ngeen di wax mënumaa tontu mooy tooñ gi gën a rëy ci tooñ yi tey tooñu bokkaale la ki yóbbu loolu mooy nekk ci bàmmeelam ñu koy laaj muy yuuxu te du mën a tontu du xam lu muy wax yàlla ne wa yudillu llahu zalimin kon yàlla moo leen di sànk yàlla moo leen di gëlëmal ba duñu xam lu ñuy wax bu ñuy faatu day mel ne baatu laa ilaha illallah duñ ko mën a wax wala da a réer ndax nit ki jafewu ko woon dundu ko woon mu nekk loo xamante ni moom ci la tabaxoon ngëm am ak diineem muy wéetal yàlla gi kon du yomb ci moom mu dem bay faatu di génn àdduna muy nekk mujjantalu kàddoom gu muy wax beneen bi ci des mooy bu fekkente ni itam nit ki dem na ci bàmmeelam ñu koy laaj mu soxla foofu lool yàlla saxalal ko làmmiñam mooy li yonent yàlla bi alayhi salatu salaam daan wax bu musaana suul ab jullit bay dem daf daan wax naan istaghfiru li akhikum واسألوا له التثبيت اسألوا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل jéggalul leen seen mbokku julit bii te ngeen ñaanal ko yàlla yàlla saxal ko làmmiñam ndax fi mu nekk ñu ngi koy laaj mooy laaj bi ñuy laaj nit ki ci bàmmeelam kon loolu nit ki war na ko waajalal tontu te tontu li mooy ci li muy def fii ci diineem di ci góorgóorlu ci wéetal yàlla subhanahu wa taala kon loolu nga xamante ne bi mooy xadisul bara ibn azib boobu xadis bu màgg la xadis bu raglu la tamit boo xam ne bu jara bàyyi xel la ci ne laaj yooyu ñuy laaj nit ki na góor góorlu ci kéemtalaay kàttanam ci jamono bi muy ànd ak sagoom mu mën a def lu tax bu ëllëgee bu demee ba sago soosu nekkatu fi tiitaange ak njàqare moo fi nekk suñu borom subhanahu wa taala dëgëral ko dëgëralal ko làmmiñam mu mën a tontu te loolu mooy wéetal yàlla ci nekk gi mu nekk borom nekk yàlla yàlloo ñu jàmm ko yàlloo màgg googu beneen bi ci des mooy wéetal yonent bi alayhi salatu salaam ci cër bi ko yàlla jox ci ñun ci ñu war koo roy war koo déggal war koo topp salawaatullahi wa salaamu alayhi hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalaamu alaykum wa rahmatullah tasnim online moo leen doon may jotaayu koor membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyób lislaam di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture am ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam